ak El Hadji Ahmed Aïdara bismillah Macky Sall bu lajee ah mbir mi dana garaaw lool Oumar Khassimou Dia moo ko xam la ci tribune yéen kay jàpp la jëriñ ne bis bi nga xam ni kon Macky Sall day nekkatul maanaam ci bëgg-bëggu askan wi ñun danañu dem kon ba ko i maa la wax li lee Oumar Khassimou Dia ne xam nga nguur boo koy jël yaag say xaritu politique yéen a koy jël waaye boo demee nag ba dara desul kon lu dul yorum réew compétence xarañ des hommes qu'il faut à la place qu'il faut maa la wax lii Abdou Mbow bu APR ci laas ne xanaa xamoo leen ne lépp mënuñu koo régler tey tey tey tey tey ak léegi léegi léegi nii ci daar daar gi ah waaw waaw waaye jàpp leen na yoonu yokkute moom mu ngi dox bu baax a baax Abdou Mbow wax du samay kaddu de Abdou Mbow ne président juróom benn weer kese la defagum ah te ni mu ko nañ ne kon def na ay jéego yoo xam ne yu ama am solo la xoolal leen ma campagne a bi nit la gerte gi la fanweer ko ngir jàppale kon wàllum campagne googee Abdou Mbow yi nga xam ne fekkoon rek ne dañ leen di yokk yokk gouvernement bi ministre yi mënuñ ko fee yokk ba mu dab ministre Abdoulaye Wade yaa na kër Abdoulaye Wade ka doon doxee nag Macky Sall yokkal na boppam laas ne dama ne ni palais ba kon doon doxee fonctionnement au présidence de la république Macky Sall daal ca budget ba xaalisam ba yokkal na boppam juróomi milliards laa ilaha illallah jay lii ba pare ministère yu baree bari mu ronqi leen dagg kon seenu xaalis Moustapha Niass yokkal nañ ko juróom-ñaari milliards la assemblée nationale kon doon doxee yokk nañ ca ñaari milliards muy juróom-ñeenti na nag la ñuy waaje kon jënd ay oto la Abdoul Mbaye premier ministre la këram nga doon doxee primature te xas nañ te lëf bu sukkandikoo ci libération yéen kay enquête yéen kay ne Macky kay fépp la laal li daanaka laas ne Youssou Ndour ne nga kon doon doxee ministère tourisme ak culture ah dagg nañ ko benn milliard la wàññeekoon wàññi kon te xaalisam ba tey lii Benoît Sambou ak Aly Ngouille Ndiaye ñu gën leen a kattanal njabootu politique gu Macky njabootu politique gu Macky googee di Macky 2012 waaw réew mi quotidien nee na coow lu méttee métti kon moo fa am fanweer ak juróom-benn ci ay parti ak ay mouvement ñu ngi ci ay tànku dem maar tey taali maa la wax li le te coordonnateur ba ci boppam ministre Ibrahima Sall moo waral coow li de gaa yaa ngi waajal assemblée générale kon ci àjjuma ji di ñëw ngir déjjati ko au parti démocratique sénégalais yi ñuy déjjati woon fii ah le nee na est-ce que opposition bu républicaine lañ ndax bëgg nañ seenu réew Modou Diagne Fadane ne bu ñu gisee daal lu dox ci suñuy bët dinañ ne kon mbir mi dox na bu ñu loo xam ne nag doxul dañ naan doxul ñun opposition wu ànd ak kilifteef wu mat sëkk la ñuy doxee waaye duñ fi nekk daal di def ay mu sedd teg ray mu neex Babacar Gaye ne ñun daal duñu opposition woo xam ne wuy taal am réew lañu pour muy leer maître El Hadji Amadou Sall ne gis nga opposition wu tey wii moo gën a mat gën a ànd ak kilif teef que gouvernement bi ci boppam l' opposition actuelle est une opposition plus responsable que le gouvernement oh gouvernement bi indi na ay coppite ca armée ba le quotidien yéen a kay ne Ousmane Sall mooy chef d' état général bu armée bu bees i Ousmane la de te waajikat atu yàlla kese moo a communication jokkoo ci arme bee ñoom dañ ne yéenañu ko yëgal mu yëw li ñëpp yëg kay mooy Macky Sall démb ma nga woon ca xalif généralu Mouride ya ca aslem Serigne Sidi Makhtar Mbacké bala ay sa président sàkku ca moom ay ñaan ci teewaayu Mbaye Ndiaye ministre de l'intérieur Macky Sall nag léegi ñetti weer yu ne dana dem kon ca Touba gee comme na ko Abdou Diouf kon doon defee jamonoy Serigne Abdoulahad Mbacké bala ay sa bala ay sa soxna Anta daax wa dañ koy daaneel de le populaire ne immeuble soxna koy daaneel même bu dee am nañu taxaw tëkk-tëkkal kon di def ay pression ngir étage ba danañu ko daaneel te dootul yàggati dara bu ñu sukkandikoo ci inspecteur général des bâtiments nekk ca ministère urbanisme maa la wax lii danañu ko daaneel de cigarette baa ngi daaneel ñu bëree bëri ci réew mi direct info ne cigarette bi giraawaal yi muy def ci réew mi jéggi na yow xoolal ma xale jigéen yi la njaga mars yi am fukki at ak ñett ak fukki at juróom téeméer boo jël fukki yëpp dañuy tox cigarette allahu akbar Sud Quotidien ne Sénégal benn milliard ci cigarette la ñuy jaay kon at bu ne réew mi quotidien ñi nga xam ne nag dañuy tux ci place publique yi nga xam ne ñëpp a fay daje am na ci ab loi boo xam ne kon ñu ngi koy waajal ca assemblée nationale assemblée nationale le soleil yéene kay nee na bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu douane Mamadou Makhtar Cissé ah nee na koppar gi nga xam ne kon moom la douane di dugal tey ay jéego la def waaye delluwul ginnaaw dem na ca lamb ja suñu lamb ne ginnaaw ba mu fi daanelee caxagun Balla Gaye 2 kon Gris Bordeaux Eumeu Sène tey Modou Lo la yóotu ñun ñetteelu ndam la maa la wax lii Balla Gaye 2 takk na ñaareel de dubal espagne ba ne yëguma ko i la ah duuba lees ne yëguma ko waaye Balla Gaye de góor la bu ko neexee takk ñaari jabar farata gi kay mooy na xam num leen di yoree kese ñaareel ñaareelu entraînement jàpp ñetteelu entraînement gay ndey def nañ ko kon démb bu ñu sukkandikoo ci tribune yéene kaay yi laas ne nit nga joxante nañ loxo dee ci ginnaaw équipe ba ñoom Papis Demba Cissé même Elas Diouf Zour mi nga xam ne da doon dóori xeer waxuma la ne day ñëw ci stade ba sax ca bis ba waaye du moo ko créé sos ko ngir ñëpp joxante loxo libération yéen ne moo tax gis nga groupe des médias gi ak lu waay mën a wax nangul ko rek ne li muy def yëpp dañu koo rafetlu te loolee muy def tam day faral tamit di jekku nag maanaam ak a bett ay concurrent am di ay wujjëm donc waa des médias moo tax toppandoo gi bari de libération yéen kaay ne ko may ma rek yow ma yeggali dama ne des médias li muy def ñëpp a ko rafetlu te day bett tamit maanaam ay wujjëm des médias nii la fi doxalee woon kon ci jamonoy inondation yi ma jàpp ga waaw waaw des médias ci boppam moo njëkk a génne junni ci ay billets maye ko Pape Cheikh Diallo daal di jël kon El Hadj Diouf Zor direct ci rajo bi la waaw El Hadj Diouf maye junni billet CCBM joxe junni billet Grand Moulin de Dakar joxe junni billet Saliou Mané Sal Mané ci tribune yéene kay responsable commercial ba ne stade Léopold Senghor daal bu feesee Sénégal dana gagné kon Côte d'Ivoire maa la wax li le Mané <laughs> alaaji buñ fàtte dugal ba de dugal rek dugal dugalaat gën a gàtt nañ dugal kon ñaari yoon buñ bëggee qualifié buñ dugalul du baax de dugal rek alaaji dikkal doos dikkal dikkal doos dikkal ku caa ko doon wax